أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الممتحن فصبر معلم البشرية ومنقذ الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المستمعون والمشاهدون الكرام في القناة الإسلامية نبي تي في 92 أوفيسيال waa fi youtube 3w nabi tv 92 point com axukum fi l islam asayid abdurrahman Thiombane yuqaddimu ilaykum albarnamiju l usbuuci zaadu l islam wa mawduuna alyowm inchaa allah sa nataxaddas kayfa tastaciddu li shahri ramadan almubarak ginnaaw bi ñu musloo ci seytaane tàmbali ci turu borom bi subhaanahu wa julli ci sangu sangu yu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñuy déglu ak dañu seetaan ci seen télévision bu mag bi di Nabi TV 92 officiel ngeen ñuy topp ci site bi www.nabitv 92 point com seen mbokkum daara oustaz Abdourahmane Thiombane Euh, mi nga xam ni moo leen di defal émission bu ñuy wax yóbbalu lislaam yóbbalu lislaam nag tey luñ leen indil mooy kayfa tastaiddu li chehri ramadan al mubarak naka ngay préparer li nga xam ni moom mooy weeru koor naka ngay waajale li nga xam ni moom mooy weeru koor ndax mbokk yi ay fan dinañ dugg ci chehru ramadan mooy weeru koor nga xam ni min afdali ashuhur mooy gën ci weer yi nga xam ni yàlla jagleel ñu ko weeru koor nekk weer woo xam ni weer wu bari ngëneel la yàlla di ko wax ci alquraanul karim baada auzu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim shahru ramadanu alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqaan faman shahida minkum alshahra falyasumhu wa man kaana minkum maridan aw ala safarin wa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxar yuridu allahu bikum alyusra wala yuridu bikumul usra wali tukmilul idda wali tukabbiru llaha ala ma hadaakum wa laallakum tashkuruun sadaqa allahu alazim borom bi subhaanahu wa taala di ñu fàttali na weeru koor nekk na weer woo xam ni ci la wàccee li nga xam ni moom mooy alquraanul karim alquraanul karim mu ngi wàcc ci weeru koor kon tàccali na na weer la boo xam ni weer bu màgg la waaye alquran moom dafa ñëw hudan linnaas pour jubal nit ñi teg leen ci siraatul mustaqim alquran moomu dafa ñëw pour euh, defar li nga xam ni moom mooy xol yi moo tax mu ni wa bayinaatin min al huda li ci nekk ci ay njub lu leer nàññi la mu ni képp koo xam ni yàlla may na la kàttan ba nga fekkee weeru koor yàlla nañu yàlla may kàttan ba ñu fekkee weeru koor incha allah yàlla yàlla nee na fal yasumhu nanga ko woor képp koo xam ni tamit ah weeru koor woowu daf la gane woon daaw nga woor ko waaye mu am ay fan yoo xam ni yàlla dogal na wooroo ko ndax feebar wala boog nga nekkoon ci tukki wala nga am ngantal boo xam ne daal moo taxoon wooroo ko wooroo ci ay fan su boobaa war ngaa xool fan yooyu ñaata la toll nga fay ko yàlla nee na nag lii boo gisee ma def ko dama bëgg rekk lu yomb ci yéen ndax duma leen teg loo xam ni lu jafe la laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaaha kon mu mel ni aay bi nga xam ni moom lañ jàng léegi suñ ci delloo lum ñi wan mooy importance bi nga xam ni waajal weeru koor am na ko waaye importance bi nga xam ni weeru koor am na ko ci biir waajal bi nga xam ni jullit bi moom la war a waajal weeru koor weer bu màgg bu tedd boobu war na ko waajal ci ñaar mooy waajal ko ci bakkanam psychologiquement mu waajal ko waaye waajal ko ci li nga xam ni moom mooy ay jëf maanaam ay fee yoo xam ni da koy def bokk na ci lim koy waajale mooy attasaamuh fexe bay baale wala afu fexe bay jéggale waaw balaa weeru koor bi jot yeneen weer yëpp war nga tàggatu ci weeru kooru daaw di baale di jéggale di jéllale ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jaamu yàlla yi jullit bi di def war naa feeñ ci li nga xam ni moom lay jëflante mbokkum julitam kon baale jéggale loolu lu ñu war a bàyyi xel la ci ki nga xam ni moom mooy waajal li nga xam ni moom mooy weeru koor ndax yonent bi sallallahu alayhi wa daan na jéggale waaye daan na baale kon yow jullit bi koo jekku rek bu ko wan ne maa ëpp doole damay fayu waaye na ko baal ngir lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko noonu war ngay e, jéggalu borom bi subhaanahu wa taala suba ak ngoon bukratan wa asila bëri looy def ay istixfaar bëri looy bàkk borom bi wa taala waaye bëri tamit looy naafila di naafila ndax weeru koor a ngi ñëw te weer la boo xam ne sopp nañu bëgg nañu ko ci naafi la ginnaaw bi nga xamee dog nga sa koor ba pare kon waroo bàyyi ba weeru koor ñëw rek nga ne xaaral ma la comme ni ko ñenn ji defee am na ñoo xam ne moom weeru koor rek moo leen di booleeg la te jullit bi nag ndollanti yooyu ñuy wax naafi la ginnaaw bi farata yi wéyee ba pare daf ko war a def ndax loolu bonus la boo xam ni yàlla daf ko koy bindal mu nekk tuyaaba moo tax lislaam jàngal ñi si booy julli sax julli faratay mun la balaa ngaa julli li nga xam ni mooy suba raxibatul fajri ñëw mooy ñaari rakkay fajar bonis la tisbaar ñëw mu ni la balaa ngaa julli tisbaar na nga julli ñaari rakka wala nga julli ñeenti rakka soo jullee tisbaar ba pare nga julli ñaari rakka wala nga julli ñeenti ràkk mu ni bala ngaa julli tàkkusaan na nga julli ñaari ràkk wala nga julli ñeenti ràkk mun la boo jullee timis ba pare na nga julli ñaari ràkk wala ñeenti ràkk wala juróom-benn ràkk booy waaja tëdd nga xam ni ci ngay julli gee nag mun la na nga naafila moo xam dangay def fukki ràkk ak benn wala dangay def fukki ràkk ak ñaan kon mu mel ni yooyu ñooñu di ay naafi la Ah, jekk na jaadu na ci jullit bi même bu dul weeru koor sax mu koy miinal li nga xam ni moom mooy boppam ñaareel bi ci waajal li nga xam ni moom mooy weeru koor mooy du niya mooy na nga am yéene am yéene donte li ci des bari na bariwut waaye na nga am yéene na fas yéene naa woor weeru koor bi bu ma fi yàlla bàyyee mu fi yàlla bàyyee ba ma fekke ko fas yéene naa woor weeru koor wi ndax innama al aamalu binniyaati wa innama li kulli mri'in ma nawa mbir yëpp fi ñuy rawante ci ki koy jëf mooy yéene bi mooy an takuna an niya niyatan saaliha sa yéene na nekk yéene boo xam ni bu baax la yàlla buur bu baax la boo yéenee yéene bu baax te amoo doolay def ko sax dalay bindal tuyaaba su ne dañuy tabax jàq ci koñ bi dañuy tabax daara nga am yéeney joxe soo joxee booleeg yéene bi yàlla ñaar yépp lay fay mooy fay na la yéene joxe waaye fay na la tamit yoolu joxe bi nga xam ni moom nga joxe yow mi amul nag loo joxe mën ngaa joxe sa jëmm mooy sa ñaq mooy am na ay bagages yu ñuy yóbbu ci jàq ja am na ay bagages yu ñuy yóbbu ci daara ji pour tabax ko nga joxe sa jëmm loolu tuyaaba boo xam ni kenn xamul nu mu toll su fekkee da ngaa lott ci ñaar yooyu yëpp nag yéene bi nag yàlla dala koy fay ndax innamal amalu binniyaat yéene yëpp li jëf yëpp mu ngi tege ci li nga xam ni moom mooy yéene waaye na fekk mu nekk yéene boobu mu nekk li wajhillahi taala ngir jëmmu yàlla bul yéene ngir ah diwa ngi def rek naa def déedéet yéene bi dafa war a nekk yéene boo xam ni yéene bu sell la naka noonu ci li ñuy waaje li nga xam ni mooy weeru koor mooy fexe ba dindi ci sa bopp bi ak sa xel beeg sa xol bi lépp loo xam ni nifaaq la nifaaq mooy nafiq waaw jullit warul nekk koo xam ni laa ilaa haulaayi wala ilaa haulaayi muzabzabina bayna zalik yonent bi bu ñuy definir li nga xam ne mooy nafiq dafa ne woon mooy koo xam ni xonkul ñuulul bulawul weexut maanaam amul couleur bokkul ci ñi bokkul ca ña ca des kon jullit war naa jàngat bu baax a baax a baax waajal li nga xam ni moom mooy euh, weeru koor ci lépp loo xam ni nifaax la muy naafiq mu fexe ba génn ci du ko def waaye tam mu waajal li nga xam ni euh, moom mooy fen waaw waajal li nga xam ni moom mooy euh, weeru koor ci bañ a fen ndax fen baaxul même bu dul weeru koor bépp weer boo xam ni rek a ah, mooy weer yi nekk ci at bi fen baaxu ci rawatina nag mu ngi gën a bone nag ci weeru koor ndax weeru koor moom dafa nekk weer woo xam ni soo ci defee lu baax yàlla da koy fulandi waaye boo ci defee safaan da koy fulandi kon jullit bi war naa waajalee weeru koor ci su fekkoon ne da daan fen mu bàyyi fen ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi leen di dénk li nga xam ni mooy dëgg di wax dëgg foo leen mën a nekk ak xew-xew yi nu mu mën a nekk circonstance boo leen mën a nekk ren na ngeen taqoog li nga xam ni mooy dëgg ndax kuy wax dëgg sa mujjuwaay mooy da ngay nekk ku baax te soo baaxee nag sa kër mooy aljane yàlla nañu ko yàlla defal waaye nee na maa ngi leen di moytandiku loo li nga xam ni mooy fen ndax kuy fen moom ah dafay taqoog fen moobu di ko continuer ba mu bokk ci ñi yàlla bind tappal leen garaatu ku mën a fen mu génn àdduna ñu dugal ko safara yàlla nañ ci yàlla musal kon julit bi bokk na ci lu muy waajale li nga xam ne mooy weeru koor moom mooy nifaax bi nekkoon ci moom mu dañ waaye nar bi nekkoon ci moom fen bi nekkoon ci moom mu ko daan fësal saa su nekk ci ay jëflanteem yi muy jëflanteeg mu julitam wala keneen ku dul jullit sax mu dañ ci ba set wecc beneen bi ci topp moom mooy arriya u mooy ngistal sooy waajal weeru koor war ngaa góor góorlu ba ngistal bu ko def ngistal mooy jaamu yàlla bi may def dama koy def ngir nit ñi wax ni maa ngi jaamu yàlla waaye yàlla taxul kon mu mel ni loolu jullit bi war na ko bàyyi xel waaye war a bàyyi xel tamit lépp loo xam ni defoon na ko ci dundam ci weeru koor wii paase mu nekk ay safaan yoo xam ne defoon na ko ah mu fas yéene ko moytundiku nag waajal ko ci weeru koor wii di ñëw bu mu def safaan ya mu defoon ndax tuub moom jariñu ludul ah, la nga defoon nga génn ci ba set wecc fas yéene nag ne dootuma ci delluwaat loolu mooy tuub naka noonu ni koy waajalee tamit siyaamu baadul ayaam min chehri su fekkee ni mën nga woor len nag ci weeru chaaban bi nga xam ne ci lañ nekk soo ci mënee woor ay fan baax na soo mënee woor nisfu chaaban genn wàllu chaaban tamit baax na ndax loolu yaa ngi tàmmal li nga xam ni moom mooy jëmm ji tàmmal biir bi li nga xam ni moom mooy xiif su ko defee ki tàmm woor xawma lu koy jaaxal waaye weeru koor du ko jaaxal ku tàmm woor nga xam ne semaine bu nekk daanaka mu woor altine wala alxemes ma ngay woor Ah, ayamul bii di ma ngay woor yeneen fan yi nga xam ne dafa baax woor arafaak yu demee ni ki noonu kooku moomu nga xam ni moom mooy woor woor yooyu weeru koor bu ñëwee du ko jaaxal lu tax jëmm ji miin na koor waaye biir bi miin na koor waaye xel mi miin na koor waaye xol bi miin na koor kon noonu lañuy waajale li nga xam ni ah, moom mooy weeru koor waaye bokk na ci liñ koy waajalee tamit mooy nanga tàmmal sa bopp ala qiraatil qur'an awit nafsaka ala qiraatil qur'an tàmmal na nga miinal sa bopp mooy wéet di jàng alqur'anu karim ndax weeru koor bu jote gis ngeen daara yi euh, jàqa yi li ñuy defee ay tafasir pour wéttaloog nit ñi ci téere yàlla bi moo tax mu ne nanga miinal sa bopp ci jàng alqur'anu karim ndax ki jàng alqur'anu karim ëllëg mook malaaka yi yu baax yi ñooy ànd dëkk kon mu mel nii bokk na ci li ñuy waajalee li nga xam ni mooy weeru ko tamit mooy nanga yar sa bakkan ci li nga xam ni mooy ragal yàlla ragal borom bi subhaanahu wa taala a taqwa waaw ragal yàlla ragal nag jullit bi daf ko war a taqoo saa su nekk bu wéeteeg bu wéttalikoog fu muy dem ak fu soreeg yépp dafa war a wéttalikoo li nga xam ni mooy ragal yàlla ndax borom bi subhaanahu wa taala nee na ittaqullaha xaqa tuqaatihi waaye wala tamutanna illa wa antum muslimun mu ne na ngeen eh, ragal suñu boroom na ngeen ragal suñu boroom dëgg-dëgg ragal na ngeen ragal yàlla dëgg-dëgg ragal ndax boo leen ko ragalee doo leen dee muk lu dul am ngeen li nga xam ni moom mooy al iman suñu sëriñ bu baax boobu di Cheikh Ahmad Tidiane Chérif al Maktoum na wax ni ragal yàlla Euh, dëgg-dëgg firéem mooy bàyyi xel ki nga xam ni mooy borom bi subhaanahu wa taala nee koy bàyyi xel rek doo def lu defuwul doo wax lu waxuwul ah doo def ci loo xam ni tamit nit ñi dañ lay xeeb kon préparer weeru koor ci ragal yàlla waaye tamit weeru koor ci ay ñaan waaw préparer weeru koor ci ay ñaan julli bi dafa war a ñaan yàlla saa su nekk saa yu amee soxla bum ko diis keneen ku yàlla waaw bum ko diis keneen ku yàlla njàppul ba set jullil ñaari ràq a jël sa kurus wala nga tàll sa loxo ñaan yàlla bàkk ko kañ ko su ko defee nga ñaan ko lu mu soxla mu may la ko ndax adduaa u silaahul mu'min ñaan moom mooy ngànnaayu li nga xam ni moom mooy jullit waaye mu waxaat ba tey addu'a u muxul ibaada yuuru jaamu yàlla moom mooy ñaan kon jullit bi yàlla dafa bëgg saa su nekk mu kay ñaan adduuni astajib lakum yàlla nee na ñaan leen ma may leen ñi nga xam ni sax dañuy rëy rëylu bañ maa ñaan dinaa leen dugal safara haa comme loolu na waar suñ demee ba borom bi naan ñaan leen may leen ñii rëy bañ maa sax dinaa leen dugal safara nga xam ni kon julit bi war naa ñaan yàlla saa su nekk waaw na nga ñaan yàlla yàlla kuy dégg la waaw loo wax mu ngi koy dégg ñaanal rek waaw booy ñaan nag am toroxlu nanga am yar nanga am teggin waaw ndax ashku ilallahi ha jallan sa yarfauha siwaaka ya rabbana yallaahu yallaahu maa ngi lay jàmbatal ngi lay jàmbatal sama soxla bi man borom bi subhaanahu wa soxla bi ma am du ma ko jàmbat keneen ku dul yàlla ndax xam naa ni yàlla soxla bi yaa ma ko mën a fajal amul keneen koo xam ni mën na ma ko fajal bokk na ci li ngay waajale li nga xam ni ah, moom mooy weeru koor mooy na ngay saraxe ah, jullit dafay saraxe saraxe day fànq lu baree baree baree bare bari na loo xam ni ah, mën na laa waaja dal sax nga saraxe yàlla fànq loolu la waajoon a dal su ko defee jullit bi war nay saraxe tàmm ko nag ci chehru chaabaan bi ñu nekk di saraxe euh, booy saraxe nag na nga saraxe li wajhillahi taala da nga saraxe rek te yàlla tax waaw naka noonu booy saraxe bëgg nañ ngay saraxe li nga xam ni moom mooy ñam di joxe ñam di joxe ñam ñam di ko saraxe tuyaaba bi ci nekk kenn xamul nu mu toll dafa am benn saxaaba bu ñëw ci yonent bi sallallahu sallam ne ko man dangaa wax ne saraxe dafa baax mu ne ko waaw mu ne ko man awma doole nag boo xam ni mën naa génnee koppar di saraxe mën naa génnee xaalis di saraxe mu ne may génnee sama yëre di saraxe ndax awma dara mu ne ko isqi walaw bi maa saraxel donte sax benn potu ndox ngay tànk joxe ko kon saraxe ndox nekk na loo xam ni lu ama am am solo la jële nañ ci abdullahi ibnu omar ibnu aas yàlla na ko yàlla gërëm mu ni anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alayhi wa ayul islaami xayrin qaala tutcimu taama wa taqra'u salaama ala man carafta wa man lam tacrif wa qaala aydan ahabu al acmaalu ila allahi sururun tadxuluhu ala muslimin aw takshifu canhu kurbatan aw tatrudu canhu juucan aw taqdi canhu daynan jëlee nañ ci abdullahi ah, ibnu omar ibnu al aas yàlla na ko yàlla gërëm mu ne dafa amoon benn góor boo xam ni dafa ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko ah, lislaam ban mbir moo ci gën ban mbir moo gën ci lislaam mu ne ko mooy nga joxe lekk waaye tamit ngay siiwal li nga xam ni moom mooy jàmm na nga joxe lekk joxe lekk lu am solo la mbokk yi bari na kuy raj rajloo ci leneen ci façon jaamu yàlla yi bàyyi fi joxe lekk joxe azaka xaalis ngay joxe wala boog mu nekk lekk wala mu nekk loo xam ni jur la waaye bëri na koy jël alalam di ko def fenn te koy def du feeñ ci ñim koy jox waaye dafa baax mooy nga gis ñoo xam ni dañoo xiif nga jox leen ñu lekk nga gis ñoo xam ni dañoo mar nga fexe ba ñu am robine boo xam ni wala forage boo xam ni sax dëkk ba ci lañuy jëfandikoo waaw boroom alal bu jël alalam xool benn dëkk boo xam ni ci dëkku kaw yi nekk ci réew mi amuñu forage amuñu ndox mu jël alalam def ci te yàlla tax ñooñu na ko wóor ni kuddo buñ fanaan naan rek tuyaaba boo xam ni mu ngi koy fekk ci biir téere jëfam moo xam mu ngi dund wala mu ngi faat wala mu faatu na kon loolu jaamu yàlla bu mag la te ndox moo ko jox waaye ah, wut tool boo xam ni tamit dang fay bayee la fay génn nga dem jox ko ñi nga xam ni ay orphelin lañu wala nga jox ko ñi nga xam ni ñooy daara yi ñooñ daara yi moo xam ay ceeb lay nekk moo xam leneen ak leneen lool li ci nekk ci ay tuyaaba kenn xamul nu mu toll moo tax mu ni wa taqra'u salaama na ngay def li nga xam ni tamit moom mooy nuyoo maanaam di siiwal nuyoo saa yoo rombee rek nga nuyoo foo rombee ne asalaamualeykum mbooloom foo leen rombee da ngay nuyoo asalaamualeykum wa rahmatullah ñu fay la ndax nuyoo sunna la waaye fay nuyoo farata la képp koo xam ne romb nga ko nuyoo ko moom fayu la rek yàlla da koy bindal li nga xam ni moom mooy bàkkaar waaw nuyoo yi ñu lislaam jox nag ne nañ koy nuyoo nañ góorgóorlu di ko siiwal mooy julit warul am complexe di nuyoo asalaamualeykum wa rahmatullah waaw boo ko waxee sa ne waa kii moom nuyoo paa lay nuyoo nag ah ñoom daal lu ñu xam mooy nuyoo yi nga xam ni ah, moom la étranger yi ah, di nuyoo ay jaajëf ak naka waar ak nangam ak nangam waaw tàgg dóorante ay loxoog bàyyi fi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu asalaamualeykum koo ko wax mooy bëgg nga mu am jàmm jàmm yàlla yërmandeem barkeem yàlla na wàcc sa kaw moomin mu delloo ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jàmm bi nga ma ñaanal yërmande bi nga ma ñaanal barke bi nga ma ñaanal yow it na wàcc sa kaw su ko defee ngeen yendoog jàmm fanaan ak jàmm barke boobu topp leen yërmande yàlla boobu topp leen ku amul barke booy dund sa dund day nekk dundu weryaan li mooy waral nga gis ñaari nit kenn ñëw nit ñi jox ko cër lool keneen ñëw nit ñi doyadal ko lool barke la barke nag lu koy joxe nekkul ñaan kese yonent bi nee na mouvement yi ngay def activité yi ngay def pour am looy dundale sa bopp pour am loo xam ne di nga ci dimbali say mbokkum jullit nee na loolu xaraka boobu ngay def noonu baraka la kon su ko defee ñu gën cee bàyyi xel di siiwal nuyoo di fexe jàmm di am ci biir kër yi waajal li nga xam ni mooy weeru koor bokk na ci yow fi nga nekk mu am jàmm parce que bu amul jàmm doo mën a woor ñuy saxal jàmm ci biir kër yi suñu xëyee nañuy nuyonte nañuy nuyonte ci biir kër yi suñuy nuyonte ci biir kër gi bu yàggee ñu nuyonte ci biir quartier bi bu yàggee ñëpp xamante bëggante soppante su ko defee loolu moo ñuy may lépp loo xam ne bëgg nañ ko am ci développement ñu mën koo am waaye ñaan ñu ànd xàccandoowuñu dóorandoowuñu fu ñu bëgg a dem duñ fa dem moo tax jàmm jooju nag a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko wax ki nga xam ak ki nga xamul soo rombee bul wax kii dama ko xam moo tax ma koy nuyu nuyoo moom koo xam ak koo xamul yépp moom ko koy def ndax tuyaaba bi nga xam ni moom moo ci nekk moo tax mu ni bokk na ci tamit li nga xam ni war nañ ko waajal ci weeru koor ñeel jullit bi moom mooy mbégte boo xam ni moom ngay dugal ci xolu bépp jullit bu góor ak jullit bu jigéen maanaam nga dugal mbégte ci moom fexe ba muy kontaan fexe ba muy kontaan xam nga ko bett xéewal yóbbu nga ko ci contentement foo xam ni moom xalaatu ko woon sax mës naa ko wax ne dafa amoon benn mbokk boo xam ni day saan euh, dafa amoon euh, xew maanaam soxnaam moo yeewee ko am doom amul lu mu ngéntee boo déggee ma ni ngénte nag mooy amul lu mu reyee sax xar waaw lu mu jëndalee soxna si li muy sol sax amu ko far mu jaaxle lool fu ne mu dem fa nag yaakaar jaamu yàlla waaye bu demee yëf sottiwul euh, jamono jooju jamono ju yàgg la ndax mu ngi tomboo nag euh, kilifa gu baax boobu rom am am boo bu mag boobu nga xam ne daanaka am amam yépp da ko doon partager ak nit ñi mooy alaaji jili mbay jël alalam di def ci jàqa yi jël alalam di ko def ci daara yi képp koo xam ni gis na ne ni rek sa bët xonk na fexe na ba nga xam ni ah, sa bët weex na dimbali di jàppale nit ñi saa su nekk nee mu ne xaaral toog fii rek xaar yàlla dama naa xaar yàlla am na quartier Dakar ah waaw xaar yàlla xaaral ma xaar yàlla mu taxaw di xaar yàlla di xaar yàlla jékki-jékki rek gis oto bu rafet mu ne ah oto bii de man euh, am naa yaakaar ne xam naa ni borom moom am na wërsëg mooy arrêté arrêté arrêté oto bi daanaka bi mu koy jublu xawoon naa ba bëgg a dem sax waaye jëmm ju baax jooju mu ngi woon ci biir oto bi mooy alxaaji li mbay mu taxaw mu ne ko chauffeur bi wax moom ne ko lan mooy sa tànk lan moo tax nga arrêté ñu mu jàmbat ko wax ko lépp ni mu demee yooyu noonu nee na alaaji bi jili mbay jël enveloppe bi daal di koy jox chauffeur bi ne ko jox ko ko waa ji biñ ko joxee enveloppe bi ah, chauffeur bi ma nga naan ko alaaji jili mbay moo ko jox de mu ni sallallahu alayhi wa ndeysaan mbégte bi mbégte bi moom moo ko yóbbu ci waroon a sant sax alaaji jili mbay ci lim ko defal waaye mu ni sallallahu alayhi wa sallam waaye keroog bu mu dajjee enveloppe bi lépp loo xam ne nit ki war na ko am ci ngénte lu war a mat matale na suur boobu noonu kon kooku mbégte boobu jullit ne moom def ko ci li nga xam ne mooy jëmmam loolu tuyaaba bi nga xam ni moo ko ci fekk kenn xamul nan la toll dugal li nga xam ni moom mooy mbégte ci xolu doomu aadama moo xam na nga koy jox alal wala boog sax nga jàng alquran ndax am na ñoo xam ne li leen di bëggal seen xol mooy jàng alquranul karim sooy jàng alquran seen kanam dañuy bég dañuy kontaan waaye am na ñoo xam ne xaalis moo leen di kontaanloo am koo xam ne nag lekk moo koy kontaanloo am koo xam ne naan moo koy kontaanloo am koo xam ni buy jaamu yàlla dafay kontaan suy julli dafay kontaan waaw bu imaam bi kàbbaree di tari yàlla bu mu mën a nekk nag imaam boo xam ni ku mën a jàng macha allah da ngay gis du bëgg sax imaam sëlmal ndax mbégte bi nga xam ni moom moo am ci jaamu yàlla bi nga xam ni moom lay def aw takshifu anhu kurbatan wala book mu amoon njàqare boo xam ne mi ngi woon ak moom ci biir xolam di ko dund ay weer dund ko ay semaine munul fexe ba njàqare boobu dañ yow nga ñëw dindil ko njàqare boobu nee na ëllëg yowmal xiyaam njàqare bi nga war a am ci yowmal xiyaam doo ko am boo waroon a dugg li nga xam ne mooy safara man dinaa la dugal ajana man borom bi subhaanahu wa taala lu tax mooy diw amoon na njàqare ci biir këram amoon na njàqare ci biir koñam waaye yow yaa ko dimbali ba njàqare boobu dañ waaye wala boog yaa suturaaloon sa mbokku jullit sutura man satara musliman satarahu llahu yowm alxiyaama bokk na ci ñuy waajale li nga xam ni moom mooy weeru koor moom mooy ngay suturaal sa mbokkum jullit dëkk bi léegi na daanaka sutura dafay jeex wala boo ñu ne daa tuxu xawma fan la dem de waaye sutura léegi nit ñi daal dañuy xaw yi sutura nit soo duggee ci internet bi sa yaram day daw sax waaw nit ku baaxoon daal dinañ fexe ba mu bon ku bonoon nag ñu fexe ba mu baax nag buñ fa yeggee na nga xam ne ñu ngi ci aaxiru zaman jullit dafa war a am sutura ci mbokkum jullitam jullit dafa war a am bàmmeelu biir képp koo xam ni sa mbokkum jullit la am na lum la déey ne bëgguma mu senn bu ko kenn xam ñun ñaar rek la waaye na nga góorgóorlu ngal la nanga nga góorgóorlu ba bu ko siiwal mukk ci àdduna waaye tamit soo ko xamalee loo xam ne sax waxuloo ko sax na nga ko suturaal ndax yonent bi nee na képp ku suturaal sa mbokkum jullit yowmal xiyaam na la wóor ni man dina la suturaal waaye képp koo xam ne da ngaa sa mbokkum jullit na la wóor ni yowmal xiyaam yàlla dina la gàcceel sa bokkum sa dina la gàcceel si ci say diggante say nawle moo tax